président bi lan la discours bi lan lay wax ak yow maa ngi subaatu mu ne dërës maanaam xutba gi ñu jàng tey ci ajuma lan nga ci déggee liñ gën a déggee ci xutba gi mooy ne respecté yàlla ak respecté yonent yi ci bokkaale respecté wulu yàlla maanaam tey boo gëmoon mboolem yonent yi weddi benn yonent rek sa gëm dafay manqué ni ko noonu saalixiina yi boo weddee kenn ci ñoom rek dañuy sëb kon ñu nekkal yàlla yéen israel dafa wax nañu borom xam-xam yi ñoom ñoo doon yonent yi al ulama warasatul kon dañ leen di màggal ndax innama yacha allah min ibadi al ulama yàlla sax tagg na leen ci alquran kon koo xam ne da nga am xam-xam ba pare jëfe ko liggéeyal yàlla daraja boo xam ne daraja boobu mën na laa ci saalixiina te saalixiin yi yàlla moo ne moom méngoo seen mbir suñ méngoo seen mbir yàlla moom méngoo seen mbir ki ko yàlla yu méngoo mbiram bu ñaanee yàlla nangu ko loolu tax nit ñi dem ci ñoom ñaanal mooy salaay salaam yoon yónnee na ñaan ci benn saxaar bu doon dem na ko bu ma fàttee ci ñaan kon dagal nag ñu jàngee ba léegi ci xutba gi ne information yi ngeen di ut yëpp alxuraan indi na alxuraan rek mooy téere bi nga xam ne maa farat naa fi kitaab min shay journal yi ni ñuy bindal télé yi ni ñuy wax lépp alxuraan gën a wér ndax ñoom li ñuy waxal mooy liñ bëgg nga dégg ak li leen neex alxuraan noonu alxuraan li lay jubal ak li tax nga am dépense li tax nga wér li tax nga am jàmm nga nekk ni ñuy jàmm alxuraan loolu lay wax kon information wér bi ñun ci alxuraan lañ koy xaar aussi jàng nañ ba léegi tey ci leçon bi ne doomu aadama bi nga xam ne am na responsabilité bu rëy boo xam ne mi ngi koy xaar ndax mën naa wuruj yàlla ci kàddu gi na naa wuruj nit ñi mën naa wuruj boppam parce que yaa ngi wax danger boo xam ne bàyyi moo ko xel utoon ni président de la république utoon ni premier ministre nga ne dañoo soxla docteur maanaam ça veut dire que yaa ngi bëgg a wax ne maanaam ñun ñi ngeen jox seen mbir mi amul conscience tranquille loolu saaga bu te ñi koy wax du dara lu may bëgg poste ki koy wax du dara lu may bëgg a tiital ki ko def mooy bëgg président bi woo ko mais bàyyiwul xel moom ci li muy wax parce que ñi intellectuel yu mag yi buñ déggee loolu dañuy tiit maanaam toog ci télévision nit di la déglu suñuy doom suñuy nijaay suñuy jarbaat nga bëgg ñoo gëmal ne ki am suñu signature bi amul concert tranquille man dafa soxla docteur ça veut dire que dafa dof loolu mooy wax jënd ah maanaam même boo amul tam moom sax nga respecté majorité Sénégal majorité bi. xaaral li ñu ne xaaral boo xam ne islam jàngal na ko ne ñu ëpp ci nit ñi respecté nit ñi dafa bokk ci nga fonk leen ni fonk léegi ñu tëj leçon bi ne Sénégal ñun xam nañ ne ñun doomi Sénégal yi xam nañ ne teraanga ji fi nekk pour ëpp na Sénégal yi maanaam tissu boo xam ne ñëpp mën nañoo sol yéen ku nekk mën nañ laa dakkal mais lu tax ba léegi ñii di am ñaw ñii di am ñaw parce que ba léegi jàppaguñ si ñu war a jàpp mooy nag mooy seddale boo xam ne maanu kulli si xaqin xaqahu maanaam amul sama bàjjan amul sama yaay ñoom ñoo am ñëpp équalité bi ñëpp lay def ah Sénégal jéego yooyu ci la jëm jéego yoo xam ne bu ñu ko amee rek kenn ku ne tiir gi dama la laaj ah amul ñii la ànd toon rek amul nangam ak nangam ñëpp la rek ah ñëw ko moom bu ñu koy am rek ku nekk nangam li war a am nga am amul kii moo xees kii moo ñuul amul kii mooy sama jarbaat amul kii moom a nangam moom yooyu fekk génn suñu xel yi mbir mi du dem yàlla yàlla ñu ci réew moo xam ne euh, réew mu laaj tey la réew mu laaj setantal la réew mu laaj tamit bàyyi sa xel ñi ngay déglu ak li ñuy wax ak li ñuy orienté que borom xam-xam war nañ leen kaddu maanaam kilifa yi dañ leen kilifa kaddu la am ci kër léegi ni ki boo ko joxee réew te joxo kaddu loo ko jox maanaam waruñoo nangu ñu ñuy fooyee ñu Sénégal nit ñi dañoo war a yeewu assemblée bi ñu bëgg a fooyee président i borom assemblée bu mu bëgg rek nga xam ne kon faral di amul moo tax nit ñi nañuy waxee seen intérêt boo xam ne intérêt intérêt général la mais intérêt personnel teg ci assemblée boo xam ne ñu Sénégal yëpp ñoo ko moom ñoo xam ne dañuy taasu di sàmm mbayaan yaa ngi di wax li leen neex mais ñi leen fal la la yàlla ñu yàlla dimbalee tànnal ñu ñoo xam ne ñu xam lan mooy doomu aadama lañ ñu xam responsabilité réew mooy la loo xam ne duñ nekk di ñu dundee rek ay at dañuy dundee rek dañuy dundee rek loolu yàllaa yor bi métti nañu yàlla na ko jeexal yàllaa yor bi noggatu bi métti na yàlla na ko jeexal yàllaa yaa rabbi noggatu bi métti na yàlla na ko jeexal yàllaa yaa rabbi sàcc bi bëri na yàlla na ko jeexal yàllaa yaa rabbi naxaati bi bëri na yàlla na ko jeexal yàllaa yaa rabbi yàlla ñu may ñu am yërmaane yàlla ñu may ñu am ah, ñu am ñu sérieux yàllaa yàlla ñu may ñu doylu yàllaa yàlla ñu may ñu am fit pour wax ne dëgg bi mu ngi nii danañ ko topp yàlla am na ko mën na ko yàlla dañ koy ñaan yàlla ko def bi jaay rasulillah yàlla ñu yàlla may réew boo xam ne benn ñëpp ñoo ci yem asalaamaaleykum